problème dafay problème bi dañ ko war a jël au sérieux waaw moo waral ñu ne nan jàdd nuyu leen saafoonteeg yow xamal leen leen wax loo fàttali leen ba nga xam ne yéen ku fi jógee mën a fàttali tam ñeneen waaw parce que nag affaire bu sérieux la li ñu leen tere ni bu leen daw bu leen nangam dafa naan activité yëpp la am boo demee Amérique kenn ku ne am nga mbokk ci Europe wala li ñu naan Moodu Moodu am nga ko Amérique wala am nga ko feneen waaye fii ñoom ñëpp ñoo nga tëju pendant trois semaines génn ñu biir kër

kon loolu daal moo war a nekkan suñu tànk pour ñu ñëw fi pour wax leen loolu waaw vraiment ñu gën a respecté distance yi toog di waxtaan boobu heure bi jotee te it ñu waxtam aussi ma fàttali leen lenn euh, que commune d'ailleurs dégg nañ ci rajo ñu ni cité Senghor fii laa dëkk cité R100 euh, Daaru Salaam te ba pare ma nekk maire bi su ma déggee nit ñi di wax ci nii wax dëgg yàlla ci côté euh, côté comment dirais-je euh, couvre-feu bi ñun ñoo ci gën a dégg di affaire bi wax dëgg yàlla du ñu neex en tant que responsable en tant que dem ñu nekk chef de famille pour waruñoo neex nañuy wax xale yi ñu toog parce que ni leen di euh, defante ak policiers yi mën na jur loo xamante ne du baax te su boobaa ku ci am doom wala ku ci am rakk wala ku ci am leneen dina nekk loo xamante ne yow rek ko koy wéete nañ leen gën a sàmmonte ak yoon bi nañ leen gën a taxaw déglu vraiment li autorité yi wax ñu samonté ko mom yalla muy ko fi indi yalla ko fi delo ah te yalla yamale ko fi ñu feebar yalla leen ci yalla yëkkati parce que nag wax deug yalla ku nekk mom làng kàllaama ba nga dégg pour ñaan yalla dégg nako yalla yàlla na yàlla nangu ñaan parce que nag fi ñu defe naa ni euh, côté personnel santé mom seen xam-xam mom wax dëgg yàlla saa bu nu xëyee fii ni gëstu nañu ba sonn mais nag kon yalla mo fi des daal pour yalla dimbali ñu yemale ko fi parce que nak tëj na àdduna bi te doomu adama dara xaju ci mom doomu adama nak comme dara xaju ci mom mo waral euh, ñëpp jaaxle donc euh, li motax ñu ñewon tay parce que poste bi buñ fi ñewé man ben sama xel dal ndax bu ma la gisee xamna la xam tay euh qualité et donc bu la fi fekkee aussi nga nekk ak la famille Bécaye ñu xamanteni ñu xam ko bu baax xam njàmbaaram aussi bi mu aman donc li sambax yalla nako yalla yàlla yalla nako yalla ko te yeexe parce que nek na ko xamante bu doon fekk na ko fi kenn du ko ëpp ci jëf ci xeex bi parce que nag euh, yàgg na ko def ñu yàgg koo xam donc euh, bu ñëwee ba ci fi poste bi mu nekk dans la commune dafay jaadu ñu ñu jël suñu def ko suñu préoccupation ñëw li ñu yaakaar ni dañ ko fi mën a indi pour que personnel bi fi ñëw ak euh, patient yi dugg si man di utiliser ni ñu ko waxee kooku moom duñ leen ko jàngal parce que yéen ñi fi nekk xam ngeen ko donc euh, personnel santé ngeen ñu fexé ba it di euh, utiliser dal li nga xamante ni moom la war di def moy gel yi euh, raxasu bi ak antiseptique bi yëpp loolu moo doon suñuy tànk tey ñu ñëw fi di continuer nag parce que dañu am un partenaire boobu itam tam c'est des Allemands benn ONG GFA moom it bët ki dem mu ñëw indi tam vraiment contribution dans la commune bokk mu ñu boole ko ak li commune bi def di wër nag def nañ formation defal nañ ay xale 33 jeunes ñu former leen ba pare pour ñu dugg ci commune bi di sensibiliser nit ñi donc bi ñu koy def itam district santé euh, sanitaire yónnee nañ ay éléments pour ñu def formation bi ak waa Croix Rouge ñoo ñëpp tam bu ñu ko defalee damay jàpp ni commune bi ñu ngi góorgóorlu ñu ngi jéem li ñu man aussi kon donc ñu bañ a négliger loolu ba nga di ko pratiquer ni nga xamante ni nañ ko waxee waaw parce que nag yëf yi moom amul beneen jàng amul beneen solution

kon nak yalla nañu yalla dimbali ba buñu ag fofu vraiment lool mo doon suñu tank ñëw fii vraiment merci beaucoup jërëjëf. waa kii ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen contribution bi ngeen fi indi di gërëm monsieur le maire bu baax ndax wuñu man ba Bécaye décédé laa fi ñëw di jàppale xale yi man dama retraité ñëw fi di jàppale xale yi di leen jàppale ci soins yi ak yooyu na man sage-femme laay infirmière technicienne supérieure dama retraité dama ñëw fii. di bekkaay sama kóllë réew la woon maa ñëw di jàppale xale yi waaye ñu ngi ci kawam coronavirus bi moom ñoo ngi ci prévention bi ndax ñun dañoo wutoon suñu matériel lu bopp sax balaay nit a dugg si dina raxasu def eau de javel def yëpp di jënd ci suñu kii bi si suñu dépense yi ñuy am fii ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla coronavirus bi yàlla na ko fi yàlla jële ñu dund ba koy nettali monsieur le maire tamit ñu ngi koy gërëm bu baax gis nañu taxawaayam na laa dëkk waaye macha allah mi ngi ñuy bu baax ngi koy ñaan jëf. sant aussi ci premier ni gis sa laver vos mains moom defe naa fekk nañu moom mi ngi ci façon bi mu ko mënee ngeen ñu fexe ba nga wax nit ku ñëw xool ko gi ni war partenaire GFA ay allemand ak la commune de Thiès di wër nag ci commune bi ginnaaw bu ñuy tàggatee jeunes yi ngay gis defal leen formation pour ñoom ñu mën a dugg sensibiliser nit ñi pour wax ndaxte feebar bi nag nekk na loo xam ne dana bëgg ñëpp ñëpp xam ni lu am la kenn nattableetu ko ndax defe naa ni ku gis ñu ñaan la lii ko rey lii ko rey ay junni saa boo xëy dégg juróom-ñetti téeméer wala junni nangam gis ñu feebar ñu la tant de nit lañu kenn telatu la yëngatu liggéey yëpp arrêté dans le monde entier defe naa ni nag. Euh, kuy kuy nit rek war nga cee bàyyi xel loolu moo waral ñu jóg nag depuis booba nag a net commune Thiès Est itam jóg euh, di ci def kemtalaay kattanam di ñëw fii millier yi nga xamante ni fii boutique yi tëjagul nit ñi dafay dugg si ak yooyu moo war a ñu teg jox la produit yi nga xamante ni ay gel la ak euh, gel main bi liquide madaar bi ak eau de javel yi dafa naan loolu bokk na ci liy désinfecté loolu moo waral ñu jox leen ko pour ku fiy dugg nga fexe ba mu raxasu boo jëlee gel ko ci biir ndax xaalis la ciy jël bu ñëwee nga defal ko ci loxoom loolu moo war waral ñu koy wër ci commune bi yëpp bi ci des lii ñu def it def nañ ko dans les marchés fi mu ne actuellement marché bi ñu desewoon muy muusante boo fa dee ñoo ngi koy nettoyé démb bërki démb euh, marché occas la woon bërkaati dem marché xel ga ak marché xel comme yooyu yëpp nettoyé nañ ko désinfecté ko ak waa service d'hygiène aussi ñu leen di sant aussi ñoom seen taxawaay parce que nag mbir mi nekk na loo ni dootul kaf dootul caaxaan nañ ko fonk nañ ko jël au sérieux di ñaan nag yàlla yemale ko fi parce que defe naa nag fii yàlla moo ci des ndax euh, personnel santé ñi nga xam mooy docteur ak ñi amee xam-xam bi boo ngeen gisee guddi ak bëccëg kenn noppalewul fexeel na nga fexe yow yaay borom boutique bi ñu respecté parce que dafa am loo xamante ni bu amee tam mën nañoo jël ay mesures ni tel boutique la tel endroit respecté wuñu lii li nu wax su boobaa ñu ñëw tëjël la sa boutique bu ko nangu amal ful ak fayda balaa nit a dugg na raxasu lii dañ la koo jox pour que parce que man nit da ngaa war a set comme loolu la nag yow mel na ci boutique bi am ci fulla am ci fayda bu nit ba bul fexe daal encaissé xaalisu nit tataxasawul parce que nag su passé tam danoo war di set léegi nag lii kenn waruñu ko woon a jàngal nag mais fi mu ne yëf yi moom xalaat nañ ni lii moom boo ko ci boolewul doo rey xeetu micro bi te micro bi ku ne mën na koo yor te ñuy respecté distance yi bu sa boutique xatee nañuy fexe ba respecté te respecté yi nga xamante ne muy digënté nit ki ak nit ki 1 mètre loolu dal mo waraloon suñu tank di leen sante bu baax di leen fi le monsieur le maire de la commune de Thiès Est monsieur Pape Bassirou Diop ñëw tew and ak équipe municipale bi yëpp ñëw en tant que premier magistrat de la commune pour ñëw ziar ci sëriñ bi sakku ci mom ñaan ngir mu ñaan li nga xam moy limbe jamono sëriñ khalim lo def ci ñaan yalla jëlé ko fi ci barke Seydina Muhammad donc ñu ngi dalal fi ci buntu kër sëriñ khalim loo Gaydel monsieur le maire kaddu gangok lan ngay wax ci baghdad on billahi mina setan rajim bismillahi rahmaani rahim barke seigne touba ah, sunu tanki nak tank tànk euh, ñëw njëkk ziar si seigne bi la nak it barab bu ñaanukaay la te am xew-xew bu am boo xamantene nak aduna bi yépp nak la jaxal kon fu ñu yaakar allahuma rek war nañ fa mëna dem rawati nak fi di sunu kër sëriñ dafa ni du gulet ñu ñëw fi kon xam nañu barab bi kon ah, mi ngi ci biir ah fekk nañ fi ñoom njógo mi jëwrin yi ñu ñëw nag di wax si rek ni ak si nañ fi pour di yeesalaat suñu njëbb tàllaat suñuy loxo di yaakaaraat allahumam yi ci li nga xamante ni àdduna bi soxla na ko muy ñaan te ku ne xam na ni moom tam wax dëgg yàlla ah am nañ ci moom yaakaar ci allahumam kon euh, lu mel ni bu xewee dafa naan ci liggéey bi la nekk te xam nañ ni ci liggéey bi la nekk ndax ñu ko waxé xam nañu fi ko teg kon mo waral nak ñu ñëw pour euh indi li nga xamanteni nak dafa nek suñu participation bo xamante dafa naa ni depuis semaine bi yépp ñu ngi and ak équipe municipale bi yépp ak personnel bi di wër ci commune bi ak partenaires yi nga xamanteni nak euh vraiment ñu sant leen lu melni GFA ak euh, GIE euh, Safinatul Aman nga xamante ni vraiment ñom japp nañ ci liggéey bi parce que dafa am xamante ni commune bo fa nekkee yalla def nga fay euh lu melni xew ñu soxla ku fa nekk di yëngutu rek ta nga man dara war nga yobbu sa war nga fa dem sa contribution jappalé leen désinfecté wu loolu daf ci bok kon bu ñu ñëwee ba fi fekk ñu fi sëriñ bi ndax mi ngi ci biir ci liggéeyam mais bu ñu fi fekkee dinañ la bayé kàddu yoyu pour que ñu wax ni nañu respecter personnel santé bi

Euh, yéen ñi xamante ni yéenay jëwri ni nekk fi bu sëñ bi nekkee ci biir ngeen bàyyi xel njaboot gi ñuy joxante distansi ñuy joxante distance parce que affaire bi kat nekk na loo xamante ni kenn mucc ci dans le monde entier amul der bu ñuul li ñaan peau euh, noir ak lépp ci am ci am kon nañu bàyyi xel ci ni du catholique bi du chrétien bi ñëpp ñoo nekk ñoo kenn nekkul dans l'abri kon lu mel noonu bu nak euh barab yu mel ni nek ay porteur de voix yo wéteni ay daara ne fi yenen ak yenen ne fi li ni jëkke indi moy jumtu kay yi nga xamanteni baxna ci parce que nak fa nu jëm kenn xam ko yéen ngi dégg ñu naan di ñu dem bo wax nit ñi bu kenn génn sa kër fofu buñ fa aggé ku ne xam ne nak Sénégal amagu ñu doole bobu boba dina métti balay bobu nak nañu respecté ordre yi nga xamanteni dañ ko wax nañu raxasoo ba set wecc di laal ci gel bi vraiment ku dem ba ñëw ak foo mën a jóge bala muy dugg ci kër gi loolu la te dama jàpp ne loolu sëñ bi moom ku ñëw fii ku xam gàmm gi bu jotee ni ñuy discipliné ni nga gisee xale yi ni ñu leen di eh, si éducation bi ñu am ma jàpp ne loolu daal dañ koy fàttali rek waaye yéen a ngi ci kon loolu moo nekkan sunu tànk tey vraiment ñu ànd nag euh, commune bi yëpp nag euh, ñëw fi euh, vraiment di rafetlu bu baax tam ni leen fi fekkee jërë jëf loolu mooy doon suñuy kàddu nga sant nu suñ bu baax. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal bu baax di tàmbale suñuy kàddu di ñaanal sëriñ bi suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér. ngir ni loolu ku dégg kàddu yi nga xam ne monsieur le maire yëkkati na ko nga xam ne koo la ci buntu kër gi du kuñ fi présenté nim mu ko njëlbeenoo ci ay kàddoom ci ëtt biit ak penc mi duñ kuñ fi yëglul ne mi ngi dikk ndax ni mu ko defee rek wane na ko sëkk ngir ne dafa yegg si rek fekk ngay toog mu sañ a doxal lépp lu mu sañ a doxal sañ fay joxe mboolem taxawaay yi nga xam ne si na koo defee ci lii nga xam ne moo lëmbee àdduna gépp di ko nuyu bu baax di ko ziar di ko jottali nuyub sëriñ bi di nuyu équipe municipale bi mu àndal nga xam ne comme ci doon rek mate woon nga sëkk ñëw fii ci pénc mi ndax lu mu fi dox si lu ne ci diggam sëriñ bi di ko dox diggante lim fi taxawee ci dëkk bi. daanaka ñii rek la koy àndal eh, nga xam ne jamono ji tembe ku ne xam ne ne eh, li olof di wax ne sikki ma lakkadoo lii xewit ñu ñëpp ñu bokk ko jis mu agsi ci penc moo xam ne nag ni ko waxee léegi lii dafa agsi rek bi nu ko xoolee ñun ñëpp ñu ree ndax li tax ñu ree mooy eh, dafa fekk jumtukaay yi ñuy jëfandikoo yoo xam ne bi lii di kee dafa njëkk a wane rek taxawaay bi municipalité bi amee ci gën a xarañal yëf yi gën ko gën ko gën koo def naka xam ne noonu la gën a rafete ndax fi ngeen taxaw tey ji buñ fi agsee fii la paano raxasu bi di nekk ànd ko ak gel ni ñu ko defee nii waaye ci biir kër gi boo duggsee rek daanaka dispositif bi ci nekk ci waxuma la nit ki ñëw waaye ci ñi dëkkee ci kër gi rek sëriñ lépp lu balu xel daaree alxuraan ji boo fa demee lu mel nii ñu taxaw tey ji moo fa nekk nga xam ne ñii taxaw tey ñoo ko saytu ba def ko ci système bu mel nii lépp it ci ndigalu sëriñ bi ngir gis ne euh, li ca gën a dal xel mooy lu ñu yëkkati di ko def rek lu mu néew néew néew 48 heures wala 72 heures sëriñ bi jiital na ko ci loolu daara ji bi muy arrêté seen njàng rek kenn xamul kañ la te lépp rek jël mesures yi nga xam ne moom la kilifa yi jàpp ni eh, loolu bu ñu ko defee dana dana dana dana faagaagal xeex bi nga xam ne distanciation bi ñuy wax ni tey jii xale yi gën a ndaw sax bàyyiwu leen ci ma ngi leen cee jël ci distance ci war kër gi lépp luy mesure bu jëm ci wàllu yooyu rek sëriñ baa ngi koy jàppalu mi ngi koy def lu ni nga xam ne noonu la ko noonu la ko kilifa yi defee kon nag bu ci monsieur le maire ñëwee nag def ci loxoom ci ni nga xam ne noonu la gën a rafetee nga xam ne duñ ñu guleet duñ mën a def ci lu dul kàddu sëriñ bi di ko sant di ko gërëm te lii bu ko sëriñ bi yëgee woon na nii lay dikkee lii moo tax lii may di ko wax ak fii ma taxawee sëriñ bee koy defal boppam ndax lii dafa toll ci moom foo xam ne lu ci nit yëkkati di ko ci def ak nu mu mënti toll moom jëmm boppam rek ko ciy doy ndax dafa jàpp ne moom acteur bi mu doon ci wàllu société acteur bi mu doon ci biir Sénégal ñi nekk ci kanamu xeex bi tey ji ci wàllu tawat ji moom du nangu kenn jiitu ko ci kanam ci ñaari mbir en tant que citoyen taxaw ca doon doomi réew mi doon koo xam ne dafa mës a jàpp rek njëriñal àddina rek la mës a doon rawatina Sénégal gi nga xam ne fa la dëkkee waaye particulièrement Thiès gi nga xam ne fii la gane àddina waaye deuxièmement ci wàllu ñaanam yi nga xam ne boobu bëleeg jugu ci dañu ci benn yoon di ko jaarale fépp foo xam ne ci biir réew ne baa lu ko jénn sëriñ bi dañu ci benn yoon kon nag ñun ci suñu kàddu dañuy dalal rek xelu monsieur le maire ci fànn yi nga xam ne jóg na doxee ko ci penc mi nga xam ne péncam la ndax ni nga ko waxee léegi sëñ Modou Lay sa sëñ Massamba kon péncam la moom mii te du tey rek ñuy kàddu googu di yëkkati ko kon lu mu fi def lu ci wàllu yi rek bu sëriñ bi ak seeke danaan ah mu fekkoon ma fi rek ba te ji ñu doxalante ko baa mu yëgloon ma ba ma xaaree ko ni ma ko war a xaaree boobu accès maag moom ñu jàppoo loxo yi defee ko nii ñu ko defee waaye daal lépp lu ci yëkkatu ko defe ko moom duñ def lu dul di ci sant di ko remercier bu baax a baax baax acte bi daal ko xaw xool daal ak ni mu dikkee nii su ko boolewuloon ak ay wax sax ñëw rek defee ko nii rek doy na sëkk lii ku ko xool xam ne li tubaab naan les images parlent mooy lii tey ko xool xam ne lii moom fàggandiku la kaaraange la sécurité la ci wàllu taw di ñu def ah di ñaan rek ci dara ji sëriñ bi tawat jii ah jéego bu mu séq ci sunum réew rek yàlla na ko sunu borom delloo gannaaw delloo ko gannaaw delloo gannaaw goo xam ne ah dana jaare noonu rek ba jaaree ko ci àddina bépp dellu ci gannaaw ba ba wëlbatiku xeli nit ñi mën a dal ba lépp àddina bi daal mën a dellu fam ne woon ndax lii daal ku ne xam ne ne ah bis bu mu xëyee di jéewa rek ay chiffres yi wàññeeku la ci économie àddina bi ay chiffres yi wàññeeku la ci déplacement doomu aadama yi te loolu ku ne xam ne ne mënta ànd ak bi toll kon nag ñu ngi ñaan daal ci barkeb Serigne Touba barkeb ak fi def yëpp ci jaamu yàlla di ko ñaaneew tawat ji nga xam ne daari ji bis bu ñu xëyee rek xare yaa ngi respecté distanciation yooyu toppatoo kaamil yi ba noppi malgré njàng mi amul waaye ñaan yi moom du fi daj mukk kon nag ñu ngi sant bu baax a baax ci turu sëñ bi monsieur le maire di kontaan daal ci acte di bëgg bu baax baax di sant ñëpp lu ci jubbu rek ci ñu ne waaye fa mu bawoo moom ku ne xam ne ne fu ko mate sëkk la ñu ngi jégalu jërë ngeen jëf. de la commune Thiès Est représentant le maire ici ci marché bi maire daf ñu yabaloon pour ñu nettoyer tous les marchés de la commune def nañ xelkom def nañ occas def nañ ko comme nii tey la ñu egg si Moussante euh, depuis loolu aussi mi ngi accompagner pour ñu defar marché yi Moussante nag marché bu mag la ñëpp xam nañ ni mënuñu ko def sax ci benn fan maire moo nekkoon sur le terrain mais ñun démarré woon nañ bu yàgg euh, mais maire fan nañu équipe équipe bi yëpp a ngi nii gis ngeen leen bien avant yéen ñëwoon ngeen avant maire di ñëw ñu ngi nii daal ci liggéey bi mbalit mi nekk fii nag bëri na bëri boo xam ne man sax damaa mujj jaaxal parce que dama xool mbalit mi ma ni lii est-ce que nañ ko mën a def tey mais heureusement équipe bi ñu am am nañ courage ñu ngi ciy jàpp ñu ngi xeex pour que mu mu lépp deñ ñun daal li ñu maire sant mooy nañu fexe ba marché bi set benen bi ma ciy dolli mooy marché bi niñ ko gisee nii ku ko xool da nga naan marché bi nan la mel nii mais maire amoon na initiative bu yàgg ak benn promoteur pour mu ñëw fii fexe ñu def marché bi marché bu moderne mais ñëw nañ fii ñu waxtaan mais yàlla def xëy na ci biir waxtaan bi déggoo ñu woon ci ci ay discussion mais loolu ñu doon bañ bi ñu commencé ci suba loolu laa commencé dégg ñoom délégué yi ñu koy waxaat ni loolooy solution bi mais comme ñi ñu ngi doon ñu ngi am xalaat boobu loolu bu ñu paree ba marché bi ba place bi leer xam naa ni maire dina toog ak marché yi ñu xool koo xam ne dinañu mën a jàppale ñu def loolu marché bi moderne parce que maire suy insister ci marché bi ñu am lu baax mooy population bi am lu baax mairie bi am recette loolu rek la parce que mairie bi du recette rek la soxla day bëgg aussi environnement wu commerçant bi nekk lu baax donc amoon na idée bi promoteur defoon na ko mais dañoo amoon malentendu moom mun ñu ngi ñaan suñu jógee ci lii ñu waxtaanaat déggoo rek marché bi normal mais maire daal mbalit maa ngi nii délégué yi et tout le monde participé nañ pareeguñu ñu ngi nettoyé voilà je vous waa jàngat bi ñu ci am waxoon nañ ko keroog dinañ ko waxaat tey mu Moussante dafa doon marché boo xam ni du marché bu ndaw marché bu mag la parce que keroog bi ñu Baye Ousmane mi nga xam ne mooy délégué bi yabalee ci réunion bi waxoon nañ ko préfet xamal ko ni ko marché bi mënuñu koo defar ci benn fan mënuñu koo nettoyé ci benn fan lii nag. xëy na euh, boo gisee fii ba nu xëyee ba tey mënuñoo génn fii ca suba ba léegi responsable yeeg équipe yi maire yi indi ñëpp ñoo ngi fii benn aussi équipe bi ndaw na ci fii ci marché bi équipe bi ñëw néew na trop doole ci marché bi parce que marché bi dafa rëy fi mu ne nii guy ga demaguñ fa marché jën ba demaguñ fa génnaguñ ci biti lépp ñoo ngi fii kon bu fekkoon équipe bi bëri woon nañ lool dañuy tas ñi dem fii ñi dem fee ñi dem fële. loolu aussi waxon nañ ko waxon nañ ni nañ ñu indil équipe bu doy xëy aussi commerçants yi aussi dañ leen waxon ñun dañu yaakaaroon ni pompe bi rek moy ki ñu ñu ci bari ñewuñu mais buñu ñu xamoon nii la démé commerçants yépp dañ leen di jox ndigal ñu ñew japp ci liggéey bi parce que liggéey bi ni mu démé mënut a pare tey beneen bi ci des moy euh maire ñong lay xamal ni la superficie bu toll ni 900 mètres carrés nek fi ci digg ville bi li wax deug yalla rusul na ci ñun délégué yi rusul na ci maire bi lu melni di fi am mbalit mu toll ni li nga xamanteni maire mairie bi mënu fe am sax 2000 francs par jour li ci lo tam toll na 900 mètres carrés jaadu na nag wax deug yalla bu li weesoo comme li délégué wax léegi nañu dindi table yëpp buñu xeyé buñu paré maire bi tok ak délégué yi ñu tok ñu xam nan lañuy ñuy jël décision ci mbar mi une bonne fois pour toutes dégg naa it sama sama naataango daam léegi wax ni bëggoon nañoo defar marché bi ñun marché bi ku ñu ko defaral rek ñu jël parce que ñun marché bi lañ bëgg rek ku ñu ko defaral. waaye nag dafa fekk ni marché bi ñu fi nekk seen doole daa bëriwul suñ doole bariwul tey jii bu fekkente nit nit dafa nekk ci buntu marché di fa jaay boo ko bëggee jëlaat jaay ko joxaat ko place bi mu joxewaat trois wala 4 millions loolu day xaw a metti loolu moo indi woon divergence bi mais ñun bañuñu ku ñu defaral lépp lu ñu bëgg mooy ku ñu defaral marché bi ci ay conditions yoo xamante ni ñu jàppandal la comme ni ko maire commencé commencé ko ci marché jën bee ñu ngi koy ñaan mu waxtaan ak délégué ñu jël décision ci maar mii parce que lii fi génn ci mbalit lii wax dëgg yàlla gàcce la dafa gàcce la parce que loo xamante ne nii li fi nekk lépp mbalit la mënuñoo fexe ba génn ba ñu xëyee ba tey loolu wax dëgg yàlla jaaduwul ku ko xool da nga ni maire bi liggéeyul mais aussi ñun délégué yi am nañ ci euh, part de responsabilité ñuy sàkku nag euh, maire lii dafa war di am parce que 94 ba tey gars yi marché marché balewuñ ko 94 ba tey raxasuñu marché bi loolu dafa bëri 26 ans ci ren ñuy maire bu lii weesoo ñi nga xam ne ñoo yor hall et marché chaque trois mois ñu ñuy woo di woo délégué yi ñuy waxtaan ak ñoom xool nu ñuy nettoyer marché bi te mbaar mi mm, euh, ñu ngi lay ñaan maire cas d'urgence la mbaar mi kaa d'urgence la loo ci man ci taxaw ci ci nu mu gën a gaawee ñoo ngi lay ñaan ñu taxaw ci ñu regle mbaar mi xool nuñ ko joxe commerçant yi ñu nekk ci biti ñëw liggéey su ko defee marché bi dund marché bi dox avantage su maire bi avantage su délégué yi ñu ngi leen di. bi waxoon nañ ko waxati ko teen bi yàgg na fi. woo nañ ci maire maire ñëw na fi gis na ko gisati na ko def nañ ci benn kii boo xamante ni bi collectif des marchés de waxtaan wane woon nañ ko gisoon ngeen ko teen bi moom wane nañ ko ba sonn dañoo bëgg yokku na sax sécurité boobu gën naa yokk tax sax ñu bëgg ñu defar mbaar mi ba pare ak jamono ji feebar bi fi mu toll war nañoo xool nag nit ñi nga xamante ni fi ñuy nekk mu set nit ñi jigéeyantoo bi aussi ñu koy bàyyi te commerçant yi aussi bëri ki démb indi nañ fi maire indi na fi ay bërigo yoo xamante ni pour raxasu la ñu ciy raxasu aussi it di nga xamante ni di toppatoo suñu hygiène loolu aussi lu ci bëri pour client yi la mais rek koy def parce que commerçant bu nekk yaakaar naa ni sa place yaa ngi jël say responsabilité loolu aussi ñu leen di jox euh, information bi leen xamal ni leen ngeen fexe di set di di toppatoo seen loxo yi ba mu set nga xamante ni feebar bi cas communautaire du dugg fii ci marché Moussante wax dëgg yàlla feebar ba mu commencé ba tey ñoo ngi sant yàlla macha allah gisaguñ ci benn cas fii ci marché Moussante na nag ngi ciy gën a suñu lépp luñ ci mën ñoo ngi ko ciy def di wax maire rek nañu jàppale ci mbaar mi mbaar mi moom wax dëgg yàlla macha allah doy na waar ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp alaykum wa rahmatullah ci turu Ousmane Mbaye délégué bi nga xamanteni ni fi nek jité marché bi mo warona wax sama place ma yabal ni ma nako wax ci turu marché bi ak turam lolo tax ma ñëw fi di leen gërëm bu baax. julli ci Mohamed sallallahu alayhi wasallam di ñaan ci yalla suñu borom di yaakar borom allahumma yi li nga xamanteni ni moo aduna bi képp ku wax euh, euh, kuy ñaan rek sa allahum bobu yalla nako yalla barkel ba safara li nga xamanteni ni ni moy Euh, actualité bi nga xamante ni àdduna bépp a jaaxle li ma koy waxee rek amul der bu ñuul amul der bu weex amul jullit amul chrétien ñëpp ci yam amul sëriñ bi amul leneen donc defe naa ni loo xamante ne ñëpp a ko bokk defe naa ni di ko waxtaanee dafay war a mën a yomb tey nekk na loo xamante ni nag yàlla mi ko fi indi nag moo ko fi mën a jëlee fi mu ne ndax bu dee wàllu kër docteur ñu ngi def seen kemt lay kartan ñun suba ak ngoon foo mën a jàpp ci àdduna bi télévision boo mën am ña fa nekk di personnel santé ba ñu ngay def lu nu man taxul affaire bi dellu ginnaaw chaque jour nga dégg lu bees ma jàpp nii nag li nu wax nag fi mu ne tax na ñun Sénégal war nañ ci am part de responsabilité ci wàllu lan li nu man ni pour war a set muy set hygiène hygiène nag boo ko déggee dañuy wax waa personnel santé ñoom ñoo wax na ñuy fexe ba nit ñi di set

waa kër docteur yi wax moom la couvre feu bi nu wax di euh, àdduna bépp def ko ñeneen ñi ñu ngi wax confiné wu toog seen biir kër yi ku ci am mbokk Europe muy Amérique wala fu mu mën a doon dans le monde entier donc euh, li ñu fi indi mooy ci dox di sensibiliser nit ñi dafa naa ni bu nga gisee t yu ñu sol ñu ngi woon ci terrain bi depuis 9 heures ànd ak ay jeunes yoo xamante ni dañ leen a former

loolu da ngay jéem a defi fexe ngay jaar fi muy jaar fële dafay xaw a doy waar bu doon géer jàkkaarloo sax di nga mën a wax mais bii nag dafa ñëw yàlla ko fi indi ah ngemb ko te yàlla moom defe naa ni lu mu def jaam dina ca mën a dina néew lu mu ca mën lu dul ñaan donc ñaan yi nag yàlla na ko yàlla nangu yàlla na yàlla barkeel parce que bu ñu monde bi entier lépp a taxaw crise mondiale la la ñuy wax tey defe naa ni réew yi ëpp puissance ñoom toll nañ foo xamante ni ci seen liggéey liggéey bu jaxasoo na ñu nga confiné wu ñu nga toog soo demee am nga mbokk Amérique wala am nga mbokk Espagne wala am nga mbokk France ñoom ñëpp nga toog kenn génnatul Sénégal nag bu naan fa lañu jëmi te buñ fa jëmee dina nekk loo xamante ni dina métti lool ci ñun kon li njëkk mooy ñu discipliné sartonte ak li nga xamante ni instruction yi nga xamante ni moom la gouvernement bi teg jaare ko ci ay ministère comme santé ak euh, ministre de l'intérieur ci couvre-feu bi il faut que nit ñi borom kër am ci fulla ak fayda ndigal yooyu ñu joxe nit ñi respecté ko di teel tok heure yi ñu wax di sàmmonte aussi ak distance yi nga xamanteni service euh, santé bi loolu lañ wax mais boo ñëwee Sénégal fay melni ni da fay manqué loolu nak ñun suñu woro gar la ñu jog mën a xeex loolu bu ñu ñëwee fi nak euh, di wax loolu

depuis booba na nga ni ak euh, service d'hygiène nga xamante ne tamit ñu pompé ko moy comme li ñu warlante won ak ñom loolu bu ñëw fi nag mbar mi ñu comme ñu bad waxé effectivement mbar mi ñun ku ne xamna ni am nañu projet amati ko fi ci marché bi boo xamante tay bu yalla defoon lepp nag dogal yalla xañ lu sëtt yalla moo ko sëttal mais suñu yéene defe naa ni du jarti fii ñuy wax naan waxan nañ ko waxan nañ ko mais dafay baax su nit waxee war nga mën a wax tam pour leeral ndax ñi koy dégg mais ku ne xam ne ni amoon nañ projet fii te nag bala ngaa amul lépp di nga taj nen marché boo xamante ni valeur du deux milliards et quelque woon ñoom ñëpp xam nañ ca dara donc kon marché bi lii dootu fi ne loolu nag ñun mun maire bi amul moyen yooyu maire bi la mais euh, ay moyen dafa limité mënuñoo tabax marché ay milliards li nu mën na tollal ku dem xel nga gis la nga xamante ne def nañ ko te ñoom ñëpp teg seen bët fii nag projet partenaire la ñu mën a am état nag bu ñëw nii da koy defar su boobaa ñun dañuy topp ci ginnaawam tam rek ndax ñooy maire bi ñu buñ ko doon defar gratuit dañ ciy sant yàlla mais bi nga xam loolu amul li nu man mooy ñun am partenaire li naan PPP yaa ngi dégg bu ñëwee defar ko pour mën a jël xaalisam ma jàpp ne nag lii nu ñu ko waxee ni mbalit bu ñu xoolee taabal yi rek wax dëgg yàlla taabal yi bu nee nit a fii toog nañu jëkk a xool suñu bopp ñun nañu jëkk xool ñun ci suñu bopp

programme nañ fi fii Pakistan bi dèjà nañ ko waxaan ba nu njëkkee ñëw marché central defoon fa jamono yooyu am na lu xewoon ñoom délégué yi ñëw nañu ba nu ñëwee wone exposé yi yéegi yëpp yàlla dogal boobu gouvernement bi tuddoon affaire Pakistan bañ ko waxee laa leen wax ñun ñun Pakistan bi lépp lu ci Thiès Est am mbaada mu sant bi mooy priorité mu sant bi lu jeetaay bi parce que li ko sabab mooy set ñu setal marché yi tàmbali nañ ko depuis une semaine te je crois que bu fekkoon ne tey lañuy jeexal fii moo ne tey pare nañ mais dafa mel ni ñu fi fekk ci mbalit euh, wone na ne du ñu mën a pare tey te loolu ñu war ci am jàngat bu bëree bëri bëri parce que boo xoolee fii nga xam ne toog na lu yàgg yàgg te nettoyé ko su fekkoonte ni ñu ngi koy nettoyé xëy na tey daan daanañ mën a pare donc may lancer appel à ce niveau ñi nekk ci marché yi nit ki fi nga nekk moom defe naa ci wàllu set kenn waru la fa jiitu dama imaginer tey bu nekkuloon euh, kii bi nii situation bi ñu toll nii ba enclenché opération de nettoyage fii bu yàggee mbalit bi mooy envoyé marché bi yëpp te loolu tamit baaxul surtout nawet bu tawee jaxasoo boobu mën na am yeneen feeb donc may lancer appel ñi ne ci marché bi yëpp ñu gën a waxtaan ak la mairie seet nu ñuy réorganiser marché yi di leen nettoyer périodiquement loolu su amee defe naa situation bi yëpp dana deñ leneen yi ci wàllu modernisation yooyu ñoom ak waa mairie la dinañ ci ñoom ñu waxtaan ci ñun on est là pour les accompagner maintenant li may waxati foofu c'est lancer un appel par rapport ak commerçant yi fi ne ak aussi la population yi nga xamante ne ñooy dem di dikk ci biir marché yi euh, la première chose ci délégué laa koy wax ñu mën ci waxtaane mooy ci marché bi yépp ñu installer dispositif lavoir des mains parce que waxoon nañ ko ci sunu rencontre bi dafa jaadu képp kuy dugg kër nga jóge boo ñëwee tamit mën nga raxasu ba set duggoo faj sa soxla booy génnaat nga raxasu parce que loolu tamit defe naa lu baax na ñiy jaay aussi ñu bañ a fàtt di jël masque di ko takk ah ñoom ñëpp buñ ci waxtaanee ci loolu kenn ku ne ñiy dugal ci marché bi ñu sensibiliser leen mën naa am yàlla musal ñu ci feebar bi nga xamante ne moo fi ne constaté nañ depuis un certain temps Thiès mu ngi mel ni lu wàññiku nañ gën a yokk xeex bi kenn ku ci ne farlu ci li nga xamante ne loolu moom lañ la digal pour nga mën ci mucc je crois que su ñëpp defee noonu yàlla dina def ñu ñu ñu ñu mën a defe naa tàggoo ak ak feebar donc may remercier ñi fi participer yëpp euh, les services techniques des mairies euh, mairie Thiès mairie ville mairie ouest aussi fa lañ tàmbale di remercier les maires avec l' appui qu'ils ont pu euh, qu'ils ont pu fournir à l'endroit donc euh, du service d'hygiène. Les marchés aussi, je n'oublierai pas les marchés, notamment marché Grand Thiès, marché Moussanté, marché Salam, qui ont, à, part l'appui qu'ils ont octroyé donc à euh, qui service d'hygiène am na leneen may andil pour pour talibé donc le geste bu Raphaël nous ñuy lancer appel aussi képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te am nous boobu ñun après dañ koy dajale jox ko talibé Lola, Amon, pour ne pas voilà remercier donc euh, tout le monde euh, ceux qui ont pu fournir ce travail remarquable et j'en profite pour féliciter les services techniques des mairies les maires et aussi le service d'hygiène j'en profite aussi pour citer en exemple les commerçants de Thiès pour ce qu'ils ont, ont eu à faire à savoir donc ils ont appuyé le service d'hygiène et, de l'autre côté aussi ils ont pu donc euh, amener des appuis au niveau de la sous-préfecture pour qu'on puisse, les remettre, pour qu'on puisse remettre euh, ces produits-là donc euh, aux, talibés. Euh, je les encourage, je les félicite. Et revenant sur ce qui est à l'ordre du jour, à savoir la lutte contre cette maladie, cette pandémie, j'ai dit que si, si on a ce problème aujourd'hui à Moussanté, c'est parce que les gens sont restés très longtemps sans nettoyer. Et là, vraiment, je m'imaginais, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas ces opérations-là, c'est les ordures qui allaient envahir totalement le marché. Et, ça, c'est une chose à éviter. Donc euh, j'invite la mairie, les commerçants à, s'asseoir sur une table et autour d'une table et à essayer de régler ce problème. Euh, pour ce qui est maintenant des comportements à adopter, comme je l'ai dit, le marché c'est un lieu de rencontre. Les gens quittent leur maison pour venir ici et ils quittent le marché pour rentrer chez eux. Donc il y a lieu de mettre euh, dans, toutes les entrées du marché euh, des dispositifs de lavoir pour permettre à chaque personne qui entre dans le marché de se laver les mains et quand il en sort, aussi de faire la même chose. Et aussi aux commerçants de porter euh, des masques et de, sensibiliser aussi ceux qui viennent au marché pour que ces personnes-là puissent aussi adopter le même comportement. Je pense qu'on a, oui, je pense qu'on a eu à à nettoyer. On terminera et il y a les services d'hygiène qui vont procéder euh, à la désinfection. Et autrement dit, on aura quelque part combattu le virus jusqu'à ses derniers retranchements. Il reste aussi pour les populations de vraiment d'observer les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires pour qu'on puisse éviter le maximum possible d'attraper le virus. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit vraiment ce que j'ai euh, trouvé ici, c'est assez étonnant. Je disais à de tout à l'heure que vous êtes resté très très longtemps sans nettoyer. C'est la raison pour laquelle vous ne pourrez pas terminer aujourd'hui. Euh, vraiment, je crois qu'à l'avenir, il faudrait que les gens s'organisent pour voir comment nettoyer périodiquement les marchés. Le lieu de travail, c'est un lieu qui doit où il, doit y avoir un bon cadre de vie. Et pour avoir ce bon cadre de vie, il faut du nettoyage, il faut aussi que les ordures soient transportées de, euh, jour en jour pour permettre euh, au marché vraiment, euh, permettre aux gens qui vivent là-bas d'avoir vraiment les meilleures conditions. Ça, vraiment, je crois que la mairie et les commerçants, pourront, euh, pourront, pourront vraiment voir comment régler ce problème et on est là pour les, pour les accompagner. Pour la situation euh, Oui, pour la situation, je dis bien que nous, nous réitérons notre appel à l'endroit des populations. Nous avons vu que vraiment à Thiès, au début, on a eu enregistré des cas, mais depuis un certain temps, on a noté vraiment une baisse et même l'absence euh, de cas. Et nous, nous, invitons les populations aussi à, vraiment redoubler de vigilance, à, tout faire pour vraiment rester, euh, pour être, euh, tout faire pour être vigilant et d'observer les mesures d'hygiène édictées donc par les autorités sanitaires. Je crois que c'est la seule issue qui peut nous sauver vraiment de cette maladie. C'est la raison pour laquelle j'ai dit on doit redoubler de vigilance, parce que les cas communautaires sont les cas les plus dangereux, parce qu'on ne sait pas quelle personne porte le virus. Autrement dit, la seule chose qui peut nous sauver, c'est d'être vigilant et de respecter les mesures d'hygiène, à savoir lavage des mains, le hein, lavage des mains, euh, le port de masque, le port de gants, respecter les distances, hein, etc. Éviter à tout prix vraiment les rassemblements. Et là, je lance un appel aux jeunes. Euh, on nous signale parfois des cas où il y a des terrains où des jeunes continuent à jouer. C'est dangereux, dans la mesure où, dans un terrain de football, si jamais quelqu'un, on ne le souhaite pas à ce virus-là, ça peut se transmettre très facilement aux autres. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à l'endroit de toute la population de Thiès, vraiment de redoubler de vigilance et de maintenir euh, le cap et de, de lutter davantage contre le virus en respectant tout simplement les mesures d'hygiène. li wax yëpp dégg naa ko li mu wax wax wax bi jeetul guddal li ci ëpp solo maire li mu wax dégg nañu ko li mu wax lépp dëgg la. Euh, ñu ngi sant itam préfet ci teew gi mu fi teew sant waa marché bi bu baax nag ñëpp nag euh, li nu wax mooy da ci am loo xam ne fi ñu toll du wax jëf lay doon euh, jëf ji nag première mooy maire deuxième bi mooy responsable marché yi rawatina nag man pare na ci lépp loo xamante ni responsabilité bi ma war a jël ci luy defar marché bi engagé naa ko te it nag li ma bëgg mooy mbaar mi taabal yëpp nañ ko génne ba mu set bu setee ba noppi nag léegi nag lu mu mën a doon nu taxaw ca mbaar mi li ko salteel dëgg du taabal yi ci la waaye du taabal yi nun ci sunu biir ci commerçant yi da ci am ñoo xam ne ñu bari fi la ñu def si seen tepp bagage bu ñu am andi ko fii dafi andi mbalit dafi def leneen lépp xam nañu ko comme yàlla dogal na xam nañu lépp nag léegi li ci app solo mooy responsabilité moo fii des jël nañu responsabilité monsieur le maire ci lépp luy defar mbaar mi lun la ci wax luy defar la noog ñoom a bokk noo ne ci marché bi te nag bu nu leen ragalul si booru wunu leen keneen waru leen a ragal di leen si booru bëgg ñu jël di so bu mat ci mbar mi ci la koy defar nak and nañ ci ak yow bir ak biti parce que li jaadootu li fi nek ci mbalit sang dama wax ni fañ wax mbobos li xawmako waye defena ni moo raw fi fi ko raw waw te nak taabal yi deñagul yep nak ni lañu mel taabal bu nek ñu mbalit talba mbalit la man sama foofu rek la ko jëme moy maire bi ak marché bi ñom nañu taxaw jël seeni responsabilité marché bi nag moom jël nañu seeni responsabilité bu baax ànd ko ak maire maire it na xool li nga xamante ni mooy defar marché bi mu ànd ko ak ñun wut équipe itam teg fi boo xam ne day surveiller marché bi marché bi amul benn sur surveillant boo xamee ni taxaw na ngir ngir toogal fi maire li ko war mu def ko amuñu ko bu ñu xasee bay wax nañ wax li nga xam ni man dama mënul wax ci biir yi ndax dama mën a kéema ne ko wax ko mooy dama munta wax lo xamni ne gisuma ko wala du deug ci man moy dama bëggan nga andil ñu ñu ño xamantene ño fi nekk bëtu mer suraya fu mu nekk mo fay mer lepp lu mu doon moko war rendre mer wala ka fa mer tek ci marché ba li dal la moy wax bi gudd gatt ño ngi sant ñepp di gëreem ñepp gëreem nañu nak euh, mer gëreem nañ ko nak te duñ waxantu lutax mooy am na gis-gis am na xalaat pour bëgg liggéey am na yu bëree bëri d'accord ñu ci woon la ko war la war lan lépp du dara lu may euh, yërëm njaboot te dem nañ ba gis ni yërëm njaboot njaboot ku ko bëgg dëgg teg ko ci yoonu dëgg wa mooy dimbali doom waaye boo yërëmee doom rek gañ nga ko gis nañu ne yërmande bi bindoon doxal moo indi yëq rëq yi yërmande boobu nag moom dañ na bis ni ki tey lii daal lañ lay bëgg a xamal te nag dama bëgg nga xam ni lii ma la wax marché bi bépp bu ñu dajee wan loolu laay wax te loolu laa gëmit te loolu laay nekkit incha allahu taala kon li ci manqué ci maire yi benn waaye dootu marché bi wasalaam